yi kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ndéwénalu coronavirus gi ci tabaski gi mi ngi soog a yegsi la Sénégal nañu yegsi na ak doole jamono ji nga xam ne ñu bari ci askan wi bàyyeekoo nañ Dakar wala ñu bàyyeekoo ca diwaan ñu nekkoon dem tabaski ji ba ñu ñibbisee li mu jur moo di cas coronavirus dafa gën a yokk rawatina lii di cas communautaire yi mu di ñi amee wopp ji te xamuñu ana fan la leen toppee ne ci 48 heures wàññi nañu ci Sénégal lu jege ñaari téeméeri cas communautaire dese ak ñeent li xew ci dëkk bi ci coronavirus bi journal La Tribune jàppe koy dégâts yu tukkee ci tabaski communautaire Sénégal juróom-ñaari nit faat nañu fi ndax mbas mi ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti cas yeneen yu yees ci cas yooyee téeméer juróom-benn fukk ak juróom-benn ay cas communautaire lañu cas communautaire yooyee ci coronavirus bi Le Quotidien bind ci xëtam mu njëkk ne ñoo ngi ne jasat ci réew mi bëccëgu dimanche démb gi rekk lu ëpp téeméeri cas am na fi téeméeri cas communautaire ak fukk ñett ñoom la gis ci lu mat ci fukki région fii ci Sénégal journal bi tuddee ko journée sans ba tegal ñu ci ne jàngoroy coronavirus beeg ñi muy lawee ci réew mi bu ñu ci jëlite matuwaay dakkal ko musiba mbàbbakumba lay doon source waa ne ko matuwaay yi kay gaañaa nga ca jëli matuwaay moo waral ñu tere ay levée du ci réew mi ba jëmmi jamono li quotidien mel ne ko naan ñu kon nag kilifa yi nañu gën a waggar ci seeni mesure ne 48 heures kat gannaaw boo fi ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye waxi waxam ndaw yi ci réew mi mu di jeunes yi dafa mel ne dégguñu wax ji ne démb place yi ci dëkk bi dañoo feesoon di artistes yi ci réew mi ndax baar yeeg boîte yeeg salle spectacle yi ñu tëj Daniel Gomes di njiital AMS mbootaay gi jaboote artistes yi ci réew mi association des musiciens du Sénégal di wax waa enquête dina kay yi ci réew mi waa roqol bu jeex la boole ndax mesures yu yees yi état bi teg dafa mel ne artistes yi la ci single Vox Populi nañu du baar yeeg boîte yi rek la tëj salle sport yi ci Ndakaar it état bi jël na dogalub tëj leen ngir ñetti moytu lu ñu mën ndax nee nañu dund doomu aadama dara ëpp ko solo kon kenn waru koo caaxaane bu caaxaan jeexee dëgg des l'observateur nee nañu li tax ba jàngoroy coronavirus gi yegg si fii Macky Sall ca nee na mu ci doxalee boobee ba léegi dimbiliwul askan wi ngir ñu jël coronavirus bi au sérieux li ñu ciy wax ak la mu cay def moom Macky dafa waroo ci waye fol la tàmbale ba far yegg ci teggi état d'urgence bi couvre-feu bi ñu tegoon ci réew mi ñu juge ca a mu bi moo ko sànq màggal ak Tuubaa ren gi ak gàmmug ren gi dañu leen a war a annulé bu ñu bëggee wàññi coronavirus beeg ni muy lawee ci réew mi waxuma ko Mary Teuw Niane moo ko wax wax jàngi ci xët mu njëkku laa Tribune Tribune nañu moom Mary Teuw Niane ministre enseignement supérieur ba woon doon léegi PCA bu Petrosen dañu ko invité woon démb ci rajo Futur Média RFM ci émission Grand Jury fa la waxee xalaatam boobee suur soi nañu waaye dootu ko defati ndax loolee mu wax ci màggaluk Tuubaa gi Sëriñ Abdou Ahad Mbacké Gaynde Fatma wax lu yoonam nekk xalifa général des Mourides kenn du lu muy def nu mu koy defee am na mat gu toll ne lu ci nekk xam na ca la ko war sëriñ Abdoul Ahad Mbacke Gaynde ma teg ci ne ñii di wër di wax keroog ba xalifa général des mourides sëriñ Mountakha Mbacke Bassirou yëkkatee ñaari téeméeri million jox kilifay réew mi ngir jàppale leen ko ci xeex coronavirus bi ñoom fu ñu nekkoon daal di ak tiis di euh, ndaw lu ñu daal di euh, jël bakkanam ci euh, noto guy jàmm département bu Tivaouane fa la ne ñeent fukk ci at ci la toll woon ab xaritam ci xibaar daal moo ko daal di jàmm mu faatu ka def jéey ji moom daal dina mes boobaak léegi leeral li Cheikh Anta Diop. ginnaaw ci weer wi ñu génn beneen njombe amaat ci noto guy jama nekk ci département bu Tivaouane ci dëkk bi ñuy wax ci laan tàngoor ab ndaw bu am ñeent fukki at. Jibril Mbaye moom la ñu faat corko jaas yi ba mu ñàkk ci bakkanam ne nañ benn xaritu bakkanam di Ousseynou jóob moom moo ko ko def ginnaaw bi ñu doon werante ci ay portable yoo xamante ne dañ ko doon chargé ci benn kër as ndaw si lañ xuloo kii di Ousseynou Diop corko jaas yi coraale sax benn baaraamam ci leen a mër nag daw waa gendarmerie bu Tivaouane ak brigade bu Noto dikkoon nag doon ko wër waaye ba léegi teguñu ko bët sapeur pompier yi Tivaouane dikkoon nag ci Noto jël ki nga xamante ne moom la ñu faat Jibril Mbaye am at morgue hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane jamono yi nag gendarmerie ubbi nañ ci l'enquête pour teg loxo ki nga xamante ne moom moo def jëf ji ak xam nag lu waral ñu cor ko jaas yi ba mu faatu RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh ñu wutali bët Saalum bu Sénégal ca fi nga xamante ni mooy Goudomp euh, Goudomp dëkk bu ñu fa daan sengeer euh, ñett ci ndaw yu ne ba tey ci loxo yi ñu ngànnaayu ñu nu ràññeegul xamuñu ñooy ñan euh, ñoo leen daal di jàpp boobaak léegi ñaar fukki benn sax la ñu tegoon loxo ginnaaw si la ñu libéré fukki ak juróom-ñett di ndaw yu demoon ci àll ba wuti màdd ciy leeral Max Euclid Compagnie. ñaari fukk ak benn ay ndaw loon bàyyeeku teel ci bés dibéer bi ci seeni bërëb Sengeer nekk ci commune Kawour jublu ci àll bisim ci commune Adéane département Ziguinchor ci ay baari taataan ndaw yooyu dañoo demoon ci àll boobu ngir uti ji ay madd te doon lu ñu sopp lool ci waxtu bi waaye ndaw yooyu bës bi mujjul te nees ñoom gannaaw bu ñu dajee ak nit yooyu yore ay nganaay boo léegi kenn xamul ñan la ñu doon nit yooyu sa yeneen si ndaw yi jàpp nañu ni dañoo bokk ci branche armée mouvement force démocratique bu Casamance maanaam MFDC ñooñu téye nañ leen foofu ay waxtu toroxal leen bu baax a baax laata fukk ak juróom-ñett si ñoom mujjee gis yoon bi nekk ci paix ba léegi nii ñett si ñoom kenn xamul fu ñu nekk ndaxte ñibbuñu seen diwaan ndax ndaw yooyu nit yi ameewoon ay nganaa yooyu dañ leen mujjee yóbbu loolu des na leer ci askan bu féete si bërëb bu ñu soxee ko naka it la fukk ak juróom-ñett yooyu si ñoom def ba am liberte ndax nit yooyu ameewoon ay nganaay ñoo leen bàyyi ngir ñu doon alerte ci ñuy dem ci bërëb boobu wala bokk ñoom dañoo mujjee rëcc ci yoxoo ñu leen jàppoo noonee loolu yëpp desandi na leer lu leer bo leer mooy fukk ak juróom-ñetti ndaw yooyu dañ leen jëkkoon rawale ci centre santé bu Goudomp ngir ñu amal paj bu njëkk mi laata ñu leen di bàyyandi ci taxawaay ñenn ci seen waajur ngir ñi dellu ci bërëb bu ñu soxee ko bañ ñu bëre ci askan bi nekk ci njaxare fu mu nekk nii l'armée bi tàmbali na ay recherche te it ñu leen di wëyal ngir am yaakaar gis ñetti ndaw yooyee Max Euclid Kamfane ci Sédhiou ngir RFM. jërëjëf Max Euclid Kamfane RFM ngir am yaakaar waxtu tegal ñeenti minutes. ndaw yooyee Max ak RFM kumpa jeex na. jërëjëf Max Lank euh, daal di dellu <laughs> Sédhiou euh, Aliou kon ñu gërëm ko bu baax Max ak Luc fan yi ñu waxtaanee wàllu syndicat ak bi ci yëngu ci wàllu liggéeykat yi yoon waa SYTJUST am nañ jàppaleeg syndicat beneen bu yëngu ci wàllu wér yaram di waa Assas Onde Gësëm euh, li waral jàppale gi mooy dañoo àndul ñu ne ci nguur gi nu gis ne la mu jógtee mooy dellu ginnaaw ci accord yi mu signé woon diggam ak yooyu liggéeykat ci wàllu justice njiital Assas Onde Gësëm Mballo Dia Thiam ñu teewlu ko te SYTJUST dafa nekk syndicat bu nga xam ne xeex na 18 ba may accord accord yoo xam ni ko boobu temps garde soo Ismaïla Madior moo fi nekkoon léegi nag 2018 ba léegi ñu nekk